mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen Baye Collé Laye gérante ba di wóyoo ci turu Collé Laye madame Mbaye nekke ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye da leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escurely placage greffage wala ngeen bëgg seen i greffage bëgg bu dee yéen ngeen a bëgg greffage nag ngir defar seen i peñe yaa ngi fii accessoire yaa ngi fii ak mbooleem xeeti accessoire yi ngeen di soxla bu dee ay perruque ngeen soxla mbokk yi wala ay greffage am nañu ay boule perruque am ay importé ci longueur boo mën di bëgg ak couleur boo mën di bëgg bu dee ci wàllu clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di ngeen fa fekk ay trois di ngeen fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ak Kolle laay madame Mbaye ku fi ñaaw Serigne Fass rek ci yow la kon nag fas ku ko seet si seet si sa njariñ. My baby got me for life. saraax la nuy def ci xew xew lamb tey fekkat fa jàngat bu yaatu ba sunu lamb def ci CNG CNG bu président Alioune Sarr ana ñaata fan moo ko dese ci lamb ci ana lan la fi digge woon lu mu defagul loolee yépp la sunu lamb xëy fasal cinquante jours de la fin du mandat xam ne muy juróom fukki fan ci mandat bi des président Alioune Sarr ak waa CNG juróom fukki fan la ñu dese ci bopp CNG bi seen mandat boobee juróom fukki fan a ci des ñu xool ba xam ndax dañ leen di soppi wala dañ leen di indiwaat ci kaw ci loolee la sunu lamb ñëw xëy fasal fukki diggeeg ñaari ñu diggee woon te dara antuwu ca ba mooy wax ja ñu waxoon ne danañ dem fédération waxi fédération ba mandat baa ngi jeex kenn waxagu ko kenn déggagu ko beneen ba mooy valoriser la lutte sénégalaise dugal ko ci patrimoine immatériel bu Sénégal ba léegi kenn gisagu ko beneen ba mooy élaborer benn loi buy wane ki nekk mbër ki ko nekkul organiser ay journée culturelle lu ci bitim réew ñaari at yu nekk ñu organiser benn festival national de la lutte dugal assistance vidéo ci lamb ji muy vaar protéger mbër yi di leen surveiller ba kenn du ci mën a ndese saison bi tëj na mandat yi dara doxatu ci saison bi tëj na làmb ji dara doxatu ci li nag du leen lu dul digeloo mënul ka mën a yore CNG bi doxal ko ba yóbbu ko fu kawe njort ak lu làmb kookii mooy Tyson nga xam le li mooy Pape Konaté coordonnateur des sages de l'arène moom Pape Konaté la mu xam mooy Tyson mérite de diriger le CNG làmb ji ku ko jox CNG mu doxal ko ku ko jox Mouhamed Ndao Tyson mu yóbbu ko fañ koy séentu xaw ma Tyson Alioune ci équipe bu Alioune bi la bokk te Olof Ndiaye dafa ne dong la ko sëriñam jàngal képp lay tari waaye am na ci lamb ji ñeneen ñu mën a remplacer président Alioune Sarr Kéba Kanté Babacar Diouf Cheikh Tidiane Ndiaye ku leen jox seen jee ñu yor ko lamb ji ku leen ko jox ñu avancé ak moom leneen la sunu lamb xëy mooy diggante Papa ak Siteu ñoom dañoo xëy samp bu ñu 12 combats 2 victoires ku wax yëmbal mane wax Pape Robo wax Bouba wax Diop 2 wax Saloum 2 bi la seen ñaari victoire ya Diop 2 moo daan Cheikh bu Waalo Bouba daan Boy Bissao seen 10 défaites ya Boy Ndiago dafa daanu Zarko 2 dafa daanu Kéemaan Maam Góor gi Siñor ak Baara ñoom ñëpp daan Habib Malaw fils de Malaw Pape Robo Saloum 2 ak Boy Joola ñëpp am défaite bu dee seen coach ba Mor la mu xamle mooy fukki défaite dafa metti 12 combats nga am ci 10 défaites jox dig daje ba ëllëg incha allah. mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen Baye Collé Laye gérante ba di wóyoo ci turu Collé Laye madame Mbaye nekke ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye da leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escurely placage greffage wala ngeen bëgg sérum seen i greffage bëgg ay steam pot defar seen greffage bu ngeen yegsee ci fas yéen bàyyi ko lelaay seen xol set bu dee yéen yor seen greffage bopp bëgg koy steam daw si leen gaaw da koy defal ci njëg yu xéewal te bu ko jàppee ba bàyyi ko ngeen jàpp lu bees la bu dee da ngeen bëgg greffage nag xeet bu mën di lekk greffage red frisé ba ci semi ondulé original bi ngeen fii fekk ngeen bëgg ay accessoire ngir defar seen i peñe yaa clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di fa fekk ay trois di ngeen fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen i bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle est disponible 24 heures sur 24 ngeen mën ko woo ak Kolle Serigne Fass rek ci yow la kon nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet baby got for life, for life.